dañ ci ànd ak Serigne Saliou Seck leen jàmm guerre de trois Macky Mimi yaa xam moo nekk ci xët u njëkkul observateur journal Futur Média bi ne ñett ñu doon ànd démb ñoo taqali ko tey ba seeni mbir jëm ci yoon Aminata Touré mi mënta wanaasu ba tey na mu jógee ca Benno Bokk Yaakaar moo tax ba dara du ko may ku fa rek Benno Bokk Yaakaar rawatina candidat Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi ne ci ayu bés bi ñu weesu journal la Soleil te yaa xam mbay di ko jiite dafa xëy bind ceew xëtam ne Amadou Ba am na lu ëpp ñetti millions yi parrain ci parrainage yi Mimi bi mu ko liiree la jàmmam jeex wax ndax ne du dëgg yemul foofu dafa porté plainte journal Le Soleil ngir ñu toppi ko fésal xibaar yu wérul li wér te wóor moo di APR ga ñu bokkoon ñoom ñett di doxal démb la am fukki at ak juróom journal Tribune nekkoon it prox ndoll ci jigéeni APR yi ñu yóbbu seeni parrainage yéeni kaay bi ne ci njiitalul Ndeye Sali Diop Dieng jox nañu Amadou Ba téeméer ak fukk ak benn junniy parrain ba noppi dik ko lu ni mel keroog élection présidentielle yu atum 2024 élection yooye moo ngi gën di jege gannaaw parrainage bi caution yi Vox Populi ne taxit ba caisse des dépôts Libération nekk jamono ji sele yoonu gaa yëglu ne mbër lañ bëgg a doon ci yooyu la élection Déthié professeur Daouda Ndiaye ba ci yeneen i joxe nañ démb seen i fanweeri million ki mën a gut a joxe caution kay moo di Ousmane Sonko enquête le quotidien bés bi le soleil Libération les Échos Vox Populi Tribune ba ci l'observateur ñoom ñëpp xëy dinu xibaar ne Ousmane Sonko rabat d'arrêt bay yóbboon ca kanamu cour suprême cour ba rejeté nañ ko Tribune a libération ne waaye dañ ko mujjee dàq bu juróom-ñetti fan ci weeru décembre yu nu jëm l'observateur moom xëy di faram-fàcce la enquête ba wax ci ay mbiram ay mbiram itam ci la source a xëy di wax ba ñuy xibaar ne démb ca tribunal moom oustaz Omar Sall dafa meloon ni kuy def show ca kanamu ñu ñëwoon di ko jàppale kan mooy jàppale nguur gi ca péncum ndawi réew mi di assemblée nationale si du quotidien bii mooy ñaari yoon yu tegaloo nguur gi di adopté projet de loi de finance te joxul député yi loi bu règlement 2022 te loolee dafay jalgate recette bu loi de finance financement bu hôpital bu bees ca Bakel jur na coow journal l'info ne marché gré à bu téeméeri million ci xaalisu euro lañ ci tudd ministère de la santé lépp aju nag ci tabax hôpital bu bees ca Bakel ak dil bu ne moo am ci matériel médical bu toll ko juróom-benn fukk ak juróomi milliards ci xaalisu CFA l'observateur ne Afrique conception distribution gën ca tudd seetal nañ seen bopp ba noppi di leeral na mbir ma demee dëgg-dëgg Asietu Kase Jum may directrice ba ne ñuy wax surfacturation teguñu ko ci benn base mu yokku marché 52 milliards yi tax ñuy wax loolee ca wax képp lay am amul benn yoon bu ko ministère de la santé validé te bu garab yi doon fàq suuf si jalaañoo itam mbindeef mënu fee teg leneen ñu dem feneen wax ci leneen muy COP 28 ba ca Dubaï le soleil national ni njiitu réew mi di président Macky Sall jël na fa kàddu yëkkati baatam di artu ak di layal déndu Afrique ngir ñu gën leen a dooleel te bañ leen a jëfandikoo ak di leen tënk ñu fekkaat ko ci journal L'As mu fay wax lu ni mel wax ji enquête moo di événement Thiaroye bi amoon benn fan ci weeru décembre atu atum 1944 journal bi ne juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent ak léegi taarix du ko fàtte bari woon na sunu maam yun ca boom te ba tey bari na lu ca lëndam ñi seen ëllëg lëndam ñoo di ñaari vigiles yi ci Les Échos journal bi ne ca këru courant gii di Excelec dañ faa sàcc juróom-ñaari transformateur électrique yuy jar benn bu nekk fanweeri million ci xaalis CFA gars yi sàcc ko jaay ko benn bu nekk benn million yéenekaay bi ne fi mu toll jàpp nañ ca ñaari vigile ak ka ko doon rawale